may wax matisal Sall na noppal boppam lii de jaru ko moom ak as as loolom di de mu teg foofu muy ministre de l'intérieur dañu noppal seen bopp ñun duñu ay préparé wuñ coup d'état duñu ay terroriste yéen ñu réew mi bon ay acteurs politiques yi yoo xam ne dañoo am suñu gis-gis bu safaanoog gis-gisam am suñu bëgg-bëgg ci réew mi bu safaanoog bëgg-bëggam bëgg te loolu mooy démocratie

benn firnde ni kii police sa bokk amuñu ko te ñaar ñi ñëw saa su ne am na ci kenn koo xam ne sama waa sécurité dem nañ bu gis ni fu mu nekk mu ngi yor am gànnaay bi mu yor ci suufu chemise kon kooku ñun kan moo ñu ne police la wala gendarmerie wala renseignement général wala est-ce ay nit yi ñu yónni na pour ñu assister Ousmane Sonko kon tey su ma gaaw leen intervenir ñii mënoon nañ dal ci kawam te bu boobaa heure bi musiba am na kon nañu bàyyi yii ñuy fowe yii c'est sacré te du kenn nag ku dul Macky Sall jël lii lépp naan yaa ngi surveiller ay adversaire politique te ñi amoon yeneen farata ñu war dox lii rafetul ci réew kon mbir maa ngi nii bi ñu xam naa ni bi ñu déggee ñu ne Ousmane Sonko ngi def live wala tudd na téléphone bi la taal seen oto léegi dem waaye saaf ba léegi ñi ngi fi taxaw nee nañu lii la ñu jël si bu ñu dellu see nag téléphone baa ngi ñu delloo leen ko ordinateur ba sax mi ngi fii saa su ñu bëggee ñëw ñu delloo ko parce que la fa nekk ci ay renseignements jàpp naa ni la ca bëri suñu sécurité nationale la awma benn intérêt téye ko waaye dama leen bëggoon woon ni mbir mi du nii du lii mooy lu xaar ci police ak gendarmerie nañu bàyyi opposition bi ñuy surveiller di ko euh, xokkatal di essayer def ay rapport suba ngoon guddeeg bëccëg ci ñoom nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Macky Sall ci réew mi kon lii na fi dakk loolu daal mooy li ñu bëggoon a leeral ci lu gàtt di leen gërëm di leen sant di leen jaajëfal asalaamaaleykum